au niveau de Pastef ñun amuñu problème avec la presse sénégalaise te sañu ñu am problème sax avec la presse sénégalaise parce que mënoo nekk ci réew bëgg koo jiite ba pare ngay jël lu mel ni presse bi ak solo si moom si réew mi ngay noonox ñoom loolu du suñu intérêt surtout que ñun ñoo bëgg a te booy gouverner presse bi dafa am pàcc bu am solo ndax ñoom ñoo relayer les informations waaye ñoom it dañoo bokk si njaboot gi xamante ne moom nga moom nga gouverner muy les sénégalais. mu nekk important. Mm-hmm. nañuy waxee ci presse bi noonu la ñuy waxee secteur yëpp parce que nous sommes des hommes politiques booy politique na bëgg defar dëkk bi bëgg ñoŋal dëkk bi donc lu jaarul ci dëkk bi am nga droit tudd ko ne lii kat jaarul dañ ko war a réformer noonu la koy waxee ci justice noonu la ñu koy waxee ci secteur yëpp même au niveau des forces de défense et de sécurité ba fi répression yi amee jaarul yoon tudd nañ ko ne jaarul yoon ba ba ñuy relayer information ci Ousmane Sonko loo xamante ne du dëgg it dem nañu ne lii dëgg ba ñu tuddee loo xamante ne tamit jaarut yoon si suñuy nit ñu jàpp leen tëj leen kaso ndax information yoo xamante ne xëy na du dëgg wax nañ ne lii du dëgg mhm. donc loolu nag ku mu métti nag yaa war a xoolaat sa bopp parce que tey jii euh, sama frère wax na ko léegi cest à corps boo dem day am des bérébicalages fépp nag ku si nekk fi am na secteur booy liggéey man mi am na sama secteur mooy liggéey boo xamante chaque jour ma dégg si presse bi ñu wax ñu lu ñu neex lu leen neex man mi su fii léegi fi may liggéey chaque jour nga xam ne si presse bi wax lu lu lay nees ñooñu te des fois day info day nekk information yi xam nga ne li amut. Hmm. waaye loolu noonu tamit boo koy def nit ñi yow tam nangul ku critiquer ndax àddina mënoo fi nekk nga fës di doxal di liggéey te la ngay liggéey soxal askan wi yëpp parce que presse bi aussi am nañu une mission de service public il ne ka ne nga ne nag la may wax kenn amu ci droit di ma critiquer parfois aussi sa euh, cor corporatisme outrancier il faudra aussi ñu xool ñu revoir ko maanaam man du ma ne rek ku laal sama ñooñ. damay jox attaqué ko loolu jaaduwut parce que yow yaa ngi laal ñooñu jàmbur yaa ngi bind sa presse sa une di critiquer ñooñu jàmbur di critiquer des koor te pourtant ñooñu ñu ngi toog jàpp seen jàmbur xam ne kat dafa am si ñoom ñu def naka su dul noonu donc bu ñu yedd ñoom nañu yedd seen i mbokk yooyu donc yow bu amee koo xamante ne ci yow moo def lu jaaduwut yow boo yedd yeddal kooku parce que am na fi tey jii presse média yoo xamante ne des des groupes de presse yoo xamante ne da ngay ne groupe de presse bi fii la far wala fële la far da gis une yoo xamante ne une yoo xamante ne bu nit ki lu ko neex lay bind wala da ngay fay pour ñu dugal la fa loolu am na une da ngay fay ñu pour ñu titre à la une loolu bàyyi naa ko journaliste ngay gis koo xamante ne tey ji information bii mooy am moom mu dem wax ci lële parce que tey ji loolu <laughs> loolu jaaduwut donc yooyu noonu ñun yooyu la ñuy wax te yooyu bu ñu koy tudd c'est juste pour ñoŋal mbir yi pour Sénégal mën a jëm kanam ndax presse mën na tey ji information ba ngay dugal mën na pourrir la vie d'une personne information dafa doy waar dafa sensible information bi nga jàllale si nit ki mën nga yàq nit ki àddunaam te xamoo ko le président Ousmane Sonko par exemple dafa am njaboot dafa am njaboot mu njabootu politique mu njaboot biologique mais ñaata yoon nga gis presse boobu day tiital à la une loo xamante ne du war ma nga koy teg si nit ku nekk na ko jël exemple si moom rek gis nga balaa ngay bindal nit ki dara xoolal na man bu ñu ma ko bindaloon wala ñu bindal kenn sama njaboot wala ñu bindal ko samay waajur naa hmm. est-ce que lii nit ñi di man donc parfois faaw ñu jël suñuy émotion suñuy passion ñu tegee ko de côté ñu jël suñu raison ñu jiital ko ñu liggéey nga liggéey teg ko ci éthique